jërëjëf maa ngi nuyu waa Grand Yoff yëpp parce loo xamante ne mën nañ ne guléet la képp ku ko tee war nga déglu ba xam lan moo tax en réalité ñu déplacé wu ñëw fii ci Grand Yoff di nuyu bu baax nag le délégué quartier monsieur Diallo man xaw ma waa Grand Yoff nu ñu def ba jël ab Diallo muy nekk seen délégué de quartier di nuyu aussi papa yi Zarko Jibi Diallo di nuyu waajur bu jigéenu Zarko Marème Ba sama jigéen di nuyu ay mbokkam yëpp di nuyu tout la population de Grand Yoff waaye di nuyu le président de de l'écurie et de l'ASC monsieur Dramé di nuyu Zarko le grand champion di nuyu les communicateurs traditionnels di nuyu les artistes mais di nuyu aussi toute la jeunesse de Grand-Yoff ah Zarko amoon naa ci yow respect amoon naa ci yow amoon naa ci yow respect amoon naa ci ñëw cofeel waaye jàppal ne yokku na tey li tax mu yokku du nit ñi fi teew moo tax mu yokku même si c'est important mais li tax mu yokk mooy danga wax ci sa yaay sa rongoñ tuuru te nit boo fonkul say wayjur ànd ak yow sax wóorul parce que gàllaaju doom ci waajur la ne tey bu ma mënoon a summi yére bi ma toll di ministre sama yaay dundaat ma def man pour mën ko kon su ma la seetsee ci situation yu simple nga tudd sa yaay te nga di ko gis mu fees sa xol nit ku baax kon yow ñeme naa la ñeme naa la parce que ba ma ñëw it say moroom ak say xarit ñoo nekk sa wet muy le président de l'ASC wax nga léegi ne yéen bokkoon di footballandoo di leen féliciter ci seen coupe bi ngeen jël aussi di féliciter Bour Gueweul waaye pour waa làmb li tax ma ñëw fii tey te ànduma ak CNG ànduma ak promoteur bi tëgg ànduma ak benn responsable lu làmb dama bëgg nit ñi xam ne ànd tey ak doomu Adama mën naa nekk te du am benn jafe-jafe Zarko dañu def drapeau tu ma ko mu bëre ko ak bay Mandione may encouragé Baye Mandione ba ñu waree joxe trophée bi wala drapeau bi fekk beneen devoir ma am ko feneen ma mujj dem keneen joxe drapeau bi sama tur Zarko ne daf may indi drapeau bi au ministère des sports ma ne ko bu ko andi man may ñëw seet si ko parce que jàmbaar nga te gagné mu mobiliser ay fansam mobiliser ay nitam loolu kóllëre la goo xamante ne sénégalais yi dañ ko war a am seen diggante parce que luy indi jàmm la luy dëgëral diggante la ma ñaanal yàlla drapeau Matar bi bii tijjil la ay buntu ba fu nit yegg ci làmb nga yegg fu ko wees di la sant it ci sa taxawaay déglu naa sa discours à l'endroit de la jeunesse de Grand Yoff discours yu responsable ngay tenir parce que ndimbal da ciy fekk loxoy borom Grand Yoff waa Grand Yoff ñoo ko mën a defar surtout la jeunesse ñoo war a nekk fer de lance pour nga mën a am nag taxawaay boobu dafa am comportement boo war a am mooy comportement buy tax nit ñi naw la nangoo liggéey am fulla am fayda doo yàq mais da ngay defar loolu képp ku ko def li nga yóotu di ko jox moo tax Zarko seet si moom ma fi andi woon pour drapeau ba nga exhibé na le nga gagné ko ci fulla ak waaye danaa ci yokk leneen dama la fekk ci say biiri mbokk nekk la maire de Fatick waaye tey je demande à Grand Yoff ngeen boole ma ci seen bopp loolu loolu li muy tekki mooy écurie Grand Yoff ci laa bokk loolu li muy tekki mooy ci sa bi laa bokk loolu muy tekki mooy bu ñuy defar jumaa ji ci laa bokk loolu li muy tekki mooy jafe-jafe terrain ci laa bokk loolu li muy tekki mooy canal bi je ne suis pas le ministre de l'assainissement waaye dina ci jot kon je serai avocat du Grand Yoff loolu nag su ma ko mënee def parce que nag tey sama ñëw fii ku xamul moo koy simplal waaye tey kii ma taaj ba ngeen xam ma yëg na ne maa ngi Grand Yoff muy le président Macky kon lépp lu ñu war a jot ci ay mëbët loo xamante ne bu ñu ko defee accompagner nit ñi dootu leen ci wéet waxuma ne dana am na parce nag doom doomu aadama day fas yéene waaye yàlla yor dogal mais li am ba am mooy au delà de tout ça ni ma leen boole ci sama bopp boole leen ma ci seen bopp waaye lépp ci dëgg nag parce que nii ngay gis nii nag mën naa lu ne mën naa def lu ne waaye lu ngeen wax te mënta nekk rek dinaa li mënul nekk ci waxtu wi nañ ko wuti ma bëgg nii ñu toogee ni tey le président de l'ASC le délégué de quartier mos na maa wax lu jëm ci terrain bi mbir nag kilifa balaa ngay àddu ci mbir danga koy xam wax ngeen ma terrain bi dinañ ko saytu ba xam lan mooy blocage dinañ ko saytu ba xam lan moo tax mënuñu ko engagé ñu wutal ko saafara pour mën ko defar leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy boo fekkee paan buy waaj a fees nga kaasu ndox lu muy tuuti tuuti boo ko ci sottee day tuuru mooy Zarko écurie nga yor balaa ngay xam ne bokk naa nga am combat suba di nga xam ne am na gan ci biir grand nawetaan yaa ngi ñëw président ASC bi dina xam ne bu wéetoo nit dootu wéet maa ngi ci wetam di nuyu nag ñi nga xamante ne cofeel moo dugg sama diggante ak ñoom maa lañ leen soog gis ñu tudd Grand Yoff avec Matar Ba ba def seeni i njël def seeni mbir tey lañ ma mos a gis cela veut dire que la relation est gratuite parce que nit dina sopp nit te yàlla tax di gërëm maam Mor mi nga xamante ne Papa Sarr moo ko yónni aussi di leen gërëm ci seen taxawaay di jox nag Zarko rendez-vous parce que nee naa leen mardi prochain bëgg naa waa Grand Yoff fekkee aussi li ñuy def Léopold Senghor parce que damay lancé les travaux du stade Léopold Senghor pour une valeur de vingt milliards de francs CFA te dina am dana am am liggéey parce que chinois yi koy liggéey du waa Chine ñëw defar si ko ingénieurs yi ñëw mais main d'œuvre bi recrutement lay doon ci ay profil pour waa Sénégal liggéey ci te ñi gën a jege mooy yéen waa Grand Médine waa Grand Yoff waa parcelle war ngeen fi mën a liggéey. loolu boo leen ñëwee dinañ leen booleeg directeur des infrastructures mu boole leen ak entreprise bi su ko defee képp ku ci sa wërsëg nekk nga mën cee liggéey dund ci am ci loo xamante ne dina la jëriñ góor ak jigéen ci la ñem Zarko yaag président ASC bi ak ñi ngeen di décider ne ñoom ñoo ñëw jarul muy bari nag parce que liggéeyu sérieux du jar bari nit vendredi à midi dinaa leen recevoir ministère des sports su ko defee lii ngeen may wax nii lu ci nekk ñu càmbar ko parce que man gàccee naa wax lu ma maîtriser wul gàccee naa diggee lu ma gëmul su ngeen ñëwee lépp lu ci am solution ci biir ci bés boobu dina am solution ci bés boobu lépp lu ñu war a wuti dinañ ànd wuti ko li ma war a rendre compte le président Macky Sall ko rendre compte par rapport ak condition yi Grand di dund li ma bëgg nit ñi comprendre Sénégal surtout sportif yi Sénégal surtout sportif yi sportif mooy ki nangoo boot ñëpp sportif mooy ki yaatu dënn sportif nag du kiy football de kiy encadré ci la bokk sportif mooy ki nga xamante ne dafa nangu sonn pour nit ñi donc dafa jot fii ñuy toll pour que Sénégal jëm kanam ñëpp joxante loxo pour un intérêt particulier du intérêt Matar Ba du intérêt Zarko mais intérêt réew mi la intérêt Grand Yoff la ku nekk ak fi nga dëkk tey nag lii bu nee am parce que dama am ay mbokk ñoo xamante ni cofeel moo tax ñu tuddee ma làmb ji moo géet ko gis mais ñii nga xamante ñoo koy représenté ñoom itam mbayin mbayin la ñun ñëpp bokk day ñoo bokk maam waa Nioro la comme man ni ma nekkee jóge Nioro ñoom ñoo ñu tuddee làmb ji ba yàlla def nga jël ko jëloo làmb rek waaye da nga amaat yeneen relation te ci la bokk ak ñi ma àndal yëpp tey jàppale boole leen ci say fans boole leen ci say frère nit nag boo ko xamul ba xam ko boo doxee diir da ngay peser sa bopp ba xam ndax am na njëriñ wala amul njëriñ may sant waa Grand Yoff yëpp nag te suba ku ma gis Grand Yoff bul jaaxle hmm. ku gis Zarko gis ma it bul jaaxle xamal ne suñu relation li ko lal mooy njàmbaar xamal ne suñu relation li ko lal mooy nangoo fighting li ko lal mooy nekk ambassadeur u Grand Yoff parce que bi muy bëre si waa Grand Yoff la def ci xelam ba xeex ba gañe kon un ambassadeur buy xeex askanama tax muy xeex loolu nag moo jur lii nga xamante ne am na te jàpp naa ne yàlla dinañu dimbale ba ànd bi rafet nekk njëriñu Grand Yoff nekk suñ njëriñ ñun ñëpp kon muy terrain bi muy jumaa ji ñu war a dugal suñu loxo muy ASC bi dégg naa ol sow sax dafa war a dem football yi final coupe du Sénégal loolu lépp dégg naa wax ji mais vendredi bu soobee yàlla dinañu toppatoo loolu yëpp li ñuy mën a andi solution dinañu ko àndi li nga xamante ne dañ koy wuuti dinañ ànd wuuti ko comme ni ma ko waxee kon délégué de quartier maa lay sant di sant ñi jël kàddu yëpp doyen ndoy di sant maître de cérémonie ñi organiser di am mbégte encore une fois ñëw fii ci Grand Yoff te commencé naa ko léegi moom sama drapeau moom ku ko gañee man may dox ba fekk la fa nga ne parce que nag léegi amatul def leneen yàgg nañ ma maa tudde drapeau mais xel mi yegguloon ci lii ci Zarko la dal kon Zarko day lay sant parce que ubbi nga suñu xel te xam ne teraanga teraanga rek a koy fay boo góor góorloo fu mbër yegg woon nga fa yegg loolu nag comme comme gars yi moom dañoo yegg dañuy dama bëgg muy leer loolu nekkul ne dama ne ki nekk roi des arènes waratul a nekk roi des arènes j'ai ku nekk nag sañ ngaa ñaan yéene ku nekk mën nga ko am parce que yéene boobu la am ci man Modou Lo mi nga nekkaloon sama rakk la sama doom sama jarbaat la dañuy déggante te xam na ne jàmm laa ko yéene. Eumeu Sène ñëpp xam nañ ne fu ma dem ci dëkk réew bi bu ma geesoo gis Eumeu Sène kon cela ci lii nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique bi dafa meloon ni làmb bu mu am di dugg ak a génn di woote di saraxe lu ne def na ko kon mbër yëpp samay xarit lañu mais nit danga koy ñaanal mu yokku te mu te nag ni ma ni may gàddoo intéret yeneen gox yi surtout fa ma dëkk di ci wax di ci trouver ay solution dinañ ci boole Grand Yoff ngir yéen ngir Zarko ngir ñi nga xamante ñoo sportifu Grand Yoff kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox rendez-vous du yàgg parce que leneen dina am yeneen a ngi xew ay yeneen gise dana am de toute façon ñi nga xamante ñooy représenté Grand Yoff ñëw ci man lépp lu xew dinañ leen ko andi dinañ leen ko yegg